ay ca yéen waa Sénégal yéen waa diaspora bi bàyyi ma benn dëkk bàyyi ma fenn man caat sekk maa leen di bëgg di leen tàllal loxo di leen bëgg bu baax a baax di leen ñaan gudd fan ak wér mais ki ma bëgg a waxal mooy Griff Sougou man xaw ma Griff Griff xaw ma Griff Sougou xaw ma Griff xaw ma laal man Griff Sougou yow xaw ma la man xaw ma la de xanaa dañ laa fay dañ laa jox xaalis pour nga wax mais nu mu demee nii man xaw ma la. barke Alaaji Fàllu Mbàkke xaw ma nga damaa taxawu si oto kañ laa taxawu si oto dama laa xam man Aziz Ndiaye laa xam Masata Ndiaye laa xam Baye Ndiaye Pamama Fall Malick Gakou Ahmed Aïdara Aline Sall man ñooñu laa xam ak Lat Diop autorité yi nekk géej waaye ñooñu laa xam ak samay fans ak samay soppe man yow xaw ma la laa fay yàq ma man mënoo maa yàq de Fall xaw la man wéeruma ci benn woykat du ma langaamu ci kenn. barke allah ji farlu barke damaa gëm sama bopp man Wally Seck ma bëgg rek ma bëgg ko man samay audio ku ko yor ak ku yor samay vocal ma wax lu ñaaw génne ko dama la ko ñaan ku yor boo yoree samay audio maa ngi lay ñaan si barkeb Serigne Saliou Mbacke si barkeb Seydouna Mouhamad soo yoree samay audio rek génneel ma ko loolu rek laa soxla man lu baax laa xam rafet laa xam yow gros xaw ma griffe xaw ma yow yaay kan man xaw ma la barke allah ji farlu Mbacke xaw ma la dañ laa fay yow ñu ngay tudd sax. ñooñu ñoo may wër Pape Diouf mi ngay tudd daf may wër daf maa bëgg Wally Seck mi ngay wër moom daf maa bëgg woykat yi woy ñëpp ma bëgg ma bëgg leen ñoom ñëpp yow Griff Sougou yow mii kii mooy mooy Griff Sougou xaw ma Griff naan waaye Griff waaye dimbale ma ngir yàlla waaye di ngeen am problème de bu dee ay woy la rek ragaluma ci maa ko man barke allah ji fàllu maa ko man nit nit du tàgg boppam nit du tàgg boppam waaye bu dee ay woy rek la maa ko man jaam man la ñuy xoolee nongoloo loolu la yàlla dogal barke allah ji fàllu sa wax ji bëri na trop dama nga liggéeyi mel ne Aziz Ndiaye dama na liggéey mel ne bàyyi Ndiaye ak Pam Mama ak ñoom Malick Gakou ñoom ñoom ñoom Alioune Sall liggéeyil sa wax ji bëri na trop.